jërë ngeen jëf mbokki internet yi dalati leen ak jàmm yéen ñu ñuy tàpp su sunu seen bi di live Dakar 221 mu doon mbégteeg bànneex bu xamante ne si ne yi daal di ko dund tey jii rek nar a amal ak tase ki nga xam ne moo di premier ministre ba di Ousmane Sonko ñu fasa rek tase foofu nga xamante ne si ne moo di eh, théâtre grand théâtre ñu def sargal ki nga xamante ne si moo di Ousmane Sonko ab rencontre xamante ne si ne rek patriote yi daal di ko doon bëgg lu bëri bëri daanaka rek. rek ba nu toogee si eh, nguur gi ba léegi eh, tësewu ne si ne moo di premier ministre di Ousmane Sonko def lu ne si procès bi ba ba mu fii naka si tey jii rek lan war a tase waaye nag loolee nekkul am meeting nekkul lenn kon nag la sa gën am solo mu doon patriote yi ñu war ko saa bàyyi xel bu baax. ñu war ko saa bàyyi xel bu baax a baax mu di message bu am solo ba nga xamante ne si na moo nar a tukki ko kookee si premier ministre bi di Ousmane Sonko nar a jëm rek si ndaw yi yi ñu war kaa dégg bu baax a baax déglu mu doon lu am solo lu xamante ne rek yaakaar naa wuute nag yenn ndaje yi nga xamante ne si na daan na am saa su ne rek ay lacrymogène ñu ko fa daan nemmeeku ay xoqatal daa ko fa nemmeeku ay arrestation ñu ko fa daan nemmeeku waaye tey ji ah, dina lool ndaxte nag patriote rek seen xër gi nu xër si ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko bëgg gis que bëgg kon nag saa bu naree ah, tase si jàmm ñu daal di waxtaan àndandoo rek daal koy sargal mu doon mbir mu am solo loolu xamante ne rek patriote yu bëree bëri leen ko euh, teewee foofe rek sa grand théâtre ñu xam ne sax daanaka rek la fa daal di taseegun sa mbooloo daan nay takk lool bari lool fas kee ne rek xaar ki nga xamante ne si na moo di Ousmane Sonko fas yéene jàmmaar ak ñoom taxaw ak ñoom waxtaan ak ñoom saafante ak ñoom rek daal koy sargal lu baax a baax ndax kooku di usmaan Sonko def na lu am solo si procès bi ni mu taxawee rek si mboppu nguur gi fi nekk mu doon gu am solo loolu fas yéene rek defar li nga xamante ne si moo di Sénégal daal koy jubbanti daal di jub jubal ak jubbanti xamante ne si na patriote yëpp loolee la ñuy xaar si ki nga xamante ne si na moo di premier ministre Ousmane Sonko mu rencontre bu a neex naka si euh, tey jii.